ministre maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu seen collaborateur yëpp monsieur le ministre maa ngi lay félicité bu baax te di am yaakaar bu baax que liggéey bi président Macky Sall dénk la di nga ci def résultat bi nga daan def président Macky Sall nag ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que tey Sénégal yëpp baykat lañ tey ñun ay doomu baykat lañ juddoo ci àll bi màggee ci àll bi xam li fi nekkoon nag président Macky Sall bi muy ñëw fi ñu fekkoon ñun xam nañ ko fu ñu toll tey xam nañ ko fi mu ñu jëmee suba aussi xam nañ ko président Macky Sall moo indi semence bu baax indi matériel équipement yu baax jàppale ñëpp ba tey ñëpp nekk baykat tey Sénégal yëpp baykat lañ waaye wutoo wutee nag bi nga xamee ne gerte gi am na at at boo xam ne dañ daan naar yi dañ ko daan jënd di ko tappee seen jur gi kon def na effort bu rëy te dafa baax nit bu defee aussi ñi gërëm ko ci lu mu def te xam nañu yéeneem aussi si baykat yi kenn du ko jaxaseeg baykat yi président Macky Sall li mu wax lu leer la waxul ne prix gerte dañ koy yemale deux cent quatre-vingt dafa ne du ñu ko jaayee lu manqué deux cent quatre-vingt ku neex nga jaayee cinq cent wala mille francs monsieur le ministre ma bëgg aussi ngeen gën a organiser wu parce que at bu jot xam nañ xaalis bi ngeen di dugal ci gerte xam nañ seen yéene ci baykat yi waaye nañu gën a organiser loolu man ma bëggoon ngeen créer société commercialisation bi nga xamante ni dañuy préparer campagne bi teg xaalis bu doy jël gerte gi jënd ko ci baykat yi baykat yi jël seen xaalis nekk ci seen jàmm nga xamante ne gerte gi yéen a koy téye jox ci Sonacos lu mu soxla mais yéen yéen koy jaay aussi chinois yi bu ñu duggee ak indien mais loolu dina nekk loo xamante ni dafay desaat ci dëkk ndax loo xam ne bu ñoree ren balaa moo ñorati déwén te ku nekk xam ne njëriñu gerte bu boobaa foog naa ne lu baree bari dina changer monsieur le ministre monsieur le ministre aussi ma bëggoon xam 10 10 20 kañ kañ la programme boobu kañ lay kañ lay engrais dis 10 20 kañ lañ koy commencé monsieur le ministre ma bëgg aussi nga gën a jàppale opérateurs yi parce que opérateurs yi aussi ñooy jël seen xaalis di sacrifier wu di def ci baykat yi te opérateur bu kontaanul baykat bi da koy yëg kon nañu jàppale opérateurs yi ma bëgg a xam li ñu leen deseel monsieur le ministre kañ lañ pare pour jox leen ko li ma waxoon monsieur le ministre banque agricole suñu banque la lu ëpp ci ñu sénégalais ñoo ko moom kon nañ ko dooleel am na programme yu am solo yoo xamante ni tey mu ngi ci ministère de la agriculture ak élevage programme yooyu noonu bu ñu ko boolee nañ ko logé ci banque bi dina gën a dimbale banque bi mais banque bi aussi dina gën a mën a jàppale baykat yi monsieur le ministre matériels yi jot nañ ci waaye ñi ngi ñaan ñu gën a dolli parce que matériels yi buy ñëw aussi nañ joxe matériel complet matériel boo ko indee te complet wul foog naa ne du jëriñ baykat bi te dineen ko détourné ci li taxoon mu jóg